ci yéene gi ci ñaan yi ci doyloo yi te duma ci dara ndaw rekk laa ndawal sëñ bi ci yéen yoo xam ne damay jottali kàddu sëriñ bi rek di ab benn taalibe ci taalibe yi jottali nag taali ndigalu sëriñ bi bëgg nag nun taalibe yëpp nu jariñu ci ci kàddu sëriñ bi ci ndigalu sëriñ bi nu jariñu ci liggéeyal sëriñ Tuubaa ndax ab ab taalibe amul dara dara dara loolu liggéeyal sëriñ bi lu ab taalibe bi di am liggéeyal sëriñ moo nu ko may loolu kat waxtu wu ne ma di ko wax ci saa yu bëri mi ñu ci liggéey bi moo jàngale woon nu ñuy liggéeyal sëriñ bi waaye bokki bokkam ya nga xam ne ñoom la bokkaloon daara ja moo leen nu ñuy liggéeyal sëriñ bi teñ topp ko ca ñoo xam ne liggéeyal sëriñ bi ba daal di ñu ko ca taxaw la sëñ bi bëgg lépp ñu defal ko ko ñu jógee ci doyaat ba ba daara ja di dolliku ba ay daara sox ko ca ba lépp di sox ko ba ba fii nu toll junni junni junni daara am te lépp ci daara Seex Ibra yooyu la jógee ak bokkam yooyu mbokkeeloon liggéey ba moo tax liggéey Sëñ Tuubaa rekk am solo te nag noonee mu barkeele ak noonee mu dolli koo mbir yëpp noonu la dolli ko te liggéey bi itam barkeb sëriñ bi nga xam ne ci moom la ñuy jariñoo boobu ba fi mu ne te te di ko jariñoo boobu ba di taxaw nu di ko jariñoo ba àjjana loolu la itam liggéey bi rek moo nu cee mën a tax jariñoo kon day maa ngi yéene sama mbokk taalibe bi yëpp jariñu ci liggéeyal sëriñ bi te liggéey sëriñ bi itam ñu wax ne liggéey bi dafa liggéey dafa yaatu lool bari lool waaye nun nu am tafeexi ñu tànnal nu liggéey bi ci ëpp solo muy buub boobu day am na ko léegi ci wax léegi ci Cheikh Moustapha du mu ko daan waaye sëñ bi ci boppam moo la nekk njaareem wax na sama dëkk bi de Touba comment ab sax ab xasab ma warul la kër ci àjjana seetal xasab nag yomb na lool ñu wax ne Cheikh Moustapha daana toog ñu wax ci mbuumum Touba li ko lépp da koy ñaddi bu ko def ci ay poosam xam li ci njariñul seetal Touba la sëriñ Muntaxa toogoon fii nanu sëriñ Tuuba seetal Tuuba ñett ci la gën a gaawee set ci bàkkaar ak sam xel set ab xaw sam xol sell la ci seetal Tuuba la gën a gaawee kon nag loolu yi lépp noonu nag dañuy ama tafeex yi féetewoo mbale mi te sëñ Muntaxa wax na ay yoon ne ma bi nañu ngeen ko fonk ndax ñëpp ko bokk te yéen la ko yàlla séddee yéen la ko sëriñ bi séddee kon ñi séddoo male mi nan xam ne dañ doon tànnal ab cër te sëñ Muntaxa at mi nga xamee na ko sëñ Mamadou a wax daan këram laxaasaayi ñoo toog ci kër sëñ Tuubaa gii yabal nu ca waar ku ñëw mën a demal ca waar wa Cheikh ak Baye Fallé ak taalibe yëpp ña moom fii ci kër gi lan laxaasaayi toog ba male mi àgg te wax ne ko liggéey bi sa teg na ko Cheikh Bass téel ndax métti na ci mag ci la Cheikh Bass waxee sëñ Mountakha ne ko kon wut wutal ma ñuma ma bu ca ko sëñ Mountakha wax ne ko Cheikh Mbacke laa lay booleel mu jiitu ci ña ña àndal kon man sama cant gi ma doon wax amu amu am na fa mu tàmbali waaye amu fa mu li ca war ci cant aw aw ma ko kon sant naa bu baax ñu baax ñi sant naa bu baax kilifa yi sa waaye sant naa bokki taalibe yi ndax ni ñu sawaree ànd man ci liggéey bi loolu de lu ma taalibe la ma sant cant gu rëy ndax sëñ Abdou Hakim dañoo nekk ci Xelkom mu ne ma sa bokki Taïba yi day biig lañu wàcc bëggoon nañ nga fe mel na ni bëggoon fekk lañ fa mel na ni bëggoon nañu ànd ak yow ab liggéey na nga xam ne sawar nañoo ànd ak yow ab liggéey waaye na nga doon bañ sawar ànd ak yow xamal na mooy doxeen ma jëmee ko kanam loolu moo amal ci rek sant naa lool te fetli sama laxasaay fetli sama laxasaay fetli sama cofeel fedd lay sama jàpp ci taalibe yëpp fas yéene ànd ak ñoom taalibe yëpp doon liggéeyal sëriñ bi loolu rek laa doon njëkkee léegi bu ñëw ci biir liggéey bi nag li sëriñ naam sax da wax noonu rek la demee liggéey bi dafa fekk ne liggéey sëriñ Tuubaa dafa yaatu te seen liggéey bi di ca raw wanaa ni li ci gën jàmb rek ñetti liggéey la mooy buub ak jëmbati garab ak sécurité sécurité loolu dafa ajeo nas ko waxtaane ko ba teg ko ci yoon nas ko waxtaane ko nag moo indi jataay yëpp loolu itam fekk na ñuy waxoon ne bisub dibéer la ñëmbat garab yi wax naa fii keroog ne yaari yëpp tax na dibéer yi ñu jàpp ne kon mbale mi dañ ko ci tàmbali ndax dañoo tàmmoon benn panu safar ñu pare ñu bari gis ne benn panu safar talaata dama la alraba te ku baax waxoon ma ne ma mbale mi na ngeen di wattandiku tàmmale ko bisu ba ndax ki ngeen koy defal day tàmmu ngutoon ñu buubal ko ba wala gaaw kon nanga nga nga fexe wattandiku ñu tàmmale ko ci àllarba wala gaaw ba ma nappi Cheikh Bassoum sëñ Abdou Khadir waxal ma ne ma daa bëgg Baay Faal yi ñëw ci ñëmar yi ñëmar li diwéer ma xam ne nag Baay Faal yi itam mënuñoo woote diwéer ñuy ñibbi altine ñu woowaat leen talaata loolu nag kon nañ jàpp di wér ne la liggéey bépp di tàmbali ñëpp ñëw ci liggéey bi buñ tàmbalee di wér altine talaata alraba alxames ba ba liggéey bi àgg rek sëñ Fallou Fall doon daan wax ne liggéey bi amuñu waxtu ndax jëmunu fenn fu liggéey ba liggéey bi àgg rek ba ñu ko tàmbalee ba liggéey bi àgg rek ñu ne nag kon gannaaw demee na noonu kenn ku am na fu ñu daan wax nga tàmbalee fa booy liggéey ndax zone yi kilifa gu nekk am na foo xam ne fa ngay tàmbalee liggéey fii ci Darou Khoudoss ci garab yi garab yi ci buntu kër Sëñ Cheikh sëñ ci jumaa ji ñi ñu doon tudd ñëpp fa la ñuy tàmbalee ci zone boobu àll ña jiite zone bi nga xam ne mooy zone bi sëñ Mourtala jiite ma nga ci tàmbalee ci ebiti jëm kër Sëñ Souhaïbou fa la sëñ Mourtala si daan nekk ak waa Mbacké ak waa Mesare ak ñu la na ñoom sóorum sëñ ñang bi ñoo daan tàmbalee fii ci daaru minam ñu waakar seex adama ba ak waak ba baabu ak euh, soppe sëñ basiru ñëpp dugg ci wuti corniche ba sëñ Fallou Fall nag moo daan tàmbalee ci kër sëñ Ablaat gii jëm ci marché ba loolu laa waxoon seen mu wax leen ko sëñ Fallou Fall nag dañu am ndigalul waakar seex yëpp dem ci njëmbat la buñ ci jógee ñëw nu ana mbale mi ginnaaw nag sëñ Fallou Fall ndigalam mooy dem ca mbale ma te marché bi moo ko daan bale te amuñu yenn kuréel yi fi daan dugg kon dañuy xam ne boo demee ca mba njëmbat la dibéer bu altine lay ñëw ci marché bi kon ñu xam ne ñaari fan yëpp marché bi dañ koy tëj mooy tax mën a set ndax dibéer bu ñu àggaloon ca njëmbat la jënd sowut dañuy si ci marché bi tam wàcc fi ko fi bu déwé bu gaaw altine ñu àggale ko bu fekkee dañoo ne ci njëmbat la jant bi so bu déwee rek ñoo fi tàmbali bu altine bu altine ñoo fi tàmbali kon loolu leer mooy li si seeni doon wax ñu xam ne tëjloo mart tëjlu marché bi fan yëpp booba ñuy noppee bale métti na ci dëkk bi ndax mënuñoo ñàkk lekk mënuñoo ñakk naan ñu ñàkk yëngu waaye nag ñaari fan li dugal benn fan dugal la ñaari fan nañ dugal ñaari fan denc ko bu ñu tëjee al di wéer ak alterné ñu dugal leen bu alterné bu fi ñu nappee bu marché bi setee ñu tàmbali eh, ñu ñu ñu ubbiwaat ko ñun ñu wéer suñu liggéey kon sëñ daam jërëjëf leeral nañ Baay Faal yëpp lañ dem ci njëmbat la ñun ñëpp kenn ku ne fa nga daan tàmbalee alterné di di wéer nga tàmbalee fa buñ nappee ndax daan ko liggéey buñ nappee ci njëmbat la ci liggéey bi ndax liggéey bi ni daan at yi ni muy demee ñu liggéey ñetti fan ñeenteel ba ñu dem bàqeya kon mel na bu ñu liggéeyee dibéer altine talaata bu àllarba ñu dem bàqeya bu ñu jógee bàqeya bu ñëwee bu altaxemesee dañ ci delluwaat ci waar wi boo àggee foofu foofu àggee nañu yeewi ko waaye ba la nu yeewi ko daag sëñ Fallou Fall loolu la ñu wax ne bon sa sàkk waxtu yeewi ko bon sàkk bisub yeewi ko mi ngi yeewi ko mi ngi aju ci màgg kon ñëpp xam ne bu ñu ñëwee itam dañ ci nekk ba mu àgg rek léegi nag loolu lañuy def kon nañ ko xamee noonu ne leer nañ waa Kër Cheikh Ibrahima yëpp ñëpp dañuy dem ci ñëmbat la dibéer bu ñu demee dibéer bu lañuy def la bu àggee jant sowut dañuy dellu ci male bi bu jant soo bu ñu at ñuy xëy alterné dañuy ñëw ci male bi sëñ Fallou nag maa dem ci marché bi ni si si si àndigalan du xaayee la kër sëñ am di Modou Mbengue ak kër sëñ Assane ak kër sëñ Ablaye ñëpp ci biir Madiyaana lañ daan nekk ak ci codice bi wuti maaree foofu la daan nekk ba tey foofu la ñuy nekk waa kër sëñ sëñ Mortal itam ñoo ànd ak waa ñoo doon ànd ak sëñ sëñ sëñ sëñ ak sëñ Cheikh sëñ waa kër sëñ Ali ñu dugg biir Xayra jiitu ko lépp wuti codice ba loolu waaye ba lu ki jo yuyoo Fall moom bala ngaa dem ci fa nga daan bale da ngay dem jëm ñëmal la ba noppi bu ñëmal la ak nag bu ñëwee ku ci nekk fa nga daan dem nga xam ne foofu ngay wuti loo ñu defal ko fa ñu tàmm dañ nga xam ne daa tàmmalil nga wéyal ko ba lépp àgg noonu lañ noonu leer nañ kon sériñ li nga doon wax mooy nañ xam ne marché bi ñaari fan yëpp li ñu koy ndax xam sëñ Fallou koy seetal te sëñ Fallou xamul ko ni ci ñëw te bu bu nappee ci lañ koy defloo muy garab ya dañuy ñëw ba ba muy set ci biir loolu tam maa ngi lay li nga waxoon ci san cant gi waa marta bi ci kuréel yooyu nga wax kuréel yëpp fekk nañu ma fii waa réseau bi ñëw nañu fii wax jaayante ci fa seen yi gën a jàpp ci liggéey bi ne ko amelan yi ñoom moom waa unis moom yàgg nañu ma fekk ci kër sëñ Tuubaa ak li ñuy jàppe ci liggéey bi ak fekk ngeen nekk fa bu sëñ Fallu ñëwee fekk leen fa ñu setal marché ba mu set wecc yéen sëñ yaa sëñ Mbaye saar sëñ Modou Mbacké mi yéen lañ naan taxaw di di mag ña nga xam ne ñooy manqué di bi marché bi ba lépp aw yoon loolu ngi leen ci sant leen ci gërëm leen xamal ne na nga wax kër yooyu yëpp ne leen ma ngi leen tal loxo ma ngi leen déglu nan ànd liggéeyal sëñ bi ndax buñ sañoon bokk jariñoo rek te liggéeyal sëñ bi rek jariñ rek ni noonu nag laay sant sama mbokk yi jàll léegi muy kër sëñ Madiba Sylla ak kër sëñ Rijaal seen wax ji rafet na lool te jot na sëkk te loolu bettu ma fa ndax ci kër yee dama faa dëkk am fa cër bu rëy lu ànd ak ñoom ci yëpp ànd ak jëwri yi ñi fa nekk itam di safee xarit waaye parce ba mag newoon ca mag ña moo ne ci naka noonu kër sëñ daaru asan parce que ba newoon ca mag ña moo ne ci ñoom noonu la ànd ak ñoom ci liggéey bi noonu la taxaw di seen mbooloo mépp génn ñu ne ci liggéey ba liggéey bi àgg kon ni ñu ko doon waxee itam seex sëñ Tuubaa yëpp itam ni ma woo kër yooyu na na leen tale loxo kër sëñ ma sëñ Masamba Diop kër sëñ Ibrahima kër sëñ Ibrahima Diop Massar ak kër si kër yi yëpp ñoo naa leen woo ndax kër seex kër seex Mbaabu ñoom naka jekk nu ngi koy ànd ci daaru menam ji sëñ Mortalaay si ni mu ko waxee waa kër noo koy ànd naka jekk ñoo ànd ak sëñ bi kon nag kër yi sëñ Tuubaa yëpp seex yi sëñ Tuubaa yëpp ñu du woowuma kenn bàyyi kenn ñëpp noo bokk liggéey bi ndax ñëpp lay yéen njariñ li kon nag bu ma seeyoon ñëpp nekk ci te ñëpp it yàlla dogal na kër gu ci nekk am naa fay wëllëre am naa fay xarit am naa fay àndandoo yoo xam ne dañuy dañoo ànd ngir sëñ Tuubaa ànd ci liggéey bi sëñ Tuubaa bi kon liggéey bi itam maa ngi sàkku ñëpp ñëwaat ci dëkk yi nga xam ne ñooy dëkk yi aju ci fii ci aju ci Tuubaa te dëkk sëñ Tuubaa noonu it na la ko wax keroog jokkoo dama ak ñoom ñëpp bi dem ñoo xëy bi ma xëy la yónnee ci sëñ Cheikh Ismaïla muy xalifa Mahmoud Diarra ne ko Mbacke Xewar ak Mesare na fa kàddoom dem ndax mooy kilifa mooy borom dëkk yi waaye wax na ko ne wax na ndaw la ne ko bu xëyee keroog rek ci suba sa dana yónnee Mesare bu ñëwee ñu ànd liggéey bi daaru ma si léegi laa taxawaate sëñ ma si téléphone ndax da woon lii laa ko woon ne ko ya kon waxal ak sëñ Bass wax gone yi nga xam ne ñoo ñooy jiitu ak ñi yore daayira yi ci Darou Mouhty ak ñi yore garage bi ci oto yi bañ wax kañ lu ñuy ñëw ak lu ñuy ñëwee wax nañ ci ba dënk kon waajtaay waa ngi noonu maire bi itam sëñ Issa Mbacke léegi la fi jóge mooy sama ndaw ci ñoom ama ab laat ka lam wax ne lam daan def ko defar na ko daan kon loolu itam leeral nañ bi yëpp daal soññ nañ ñëpp te ñëpp façon nañ noo ngi gën a rafet ñor ci ne lu masaan gën a yombe dana ni gën a gën a yombe am na ñaari cant yu ma yoxoon keroog yi dinaa ko waxaat muy ci atu zone 7 UGC gi Papa Ndiaye mi jiite ndax ci dëkk bi ku xam na ne seen seen positif ak seen taxawaay dolli ko nañ ba Papa Ndiaye mi tëral ko doo xam ne daawoon a demee ba quartier bu nekk am na bis boo xam ne buñ bu bis boobaa seen oto dana dem seen mbooloo dana fa dem dañ fa yenn ba ngoon ba tax na gàttal nañ na gàttal nañ na fa baax a baax a baax maa ngi leen sant waaye sëñ bi ñuy liggéeyal mu ngi leen gis su ma leen fay ji ci kanam itam tàmmale woon nañ mbale mi am nañ ay fan yu noo xam ne doon nañ ko dox di di ci yebal di ci yeble ay oto ki peel ñu tibb ay sën loolu itam dañ ne gàttandoo nu di leen gàttandoo ndax noo bokk liggéey bokk liggéey bi bokk dëkk bi bokk bokk yoon bi léegi laa ko mujjee wax ñoom jot bi ma jotee sëñ Abibu jot sëñ Ablaat Abibu sëñ Mamor ngir ab carrière bu ma wax ñoom fi ñuy jëlee ci suuf ndax ñii waa Ecotra yi nga xam ne fa lañ yenn Ablaay Ablaay si la daan def bu male mi ñëwee mu yebal waa këram mata ne nañ arrêté sànceem yëpp oto yëpp ñëw bu ñëwee ñii ni ci male mi bu la mi jegee ñu jeexee ñu ñu toogaa fi ñaari ay di ma nga ndox ak ak sëgg suuf moo taxoon ma wax waa Touba ci kanam seen carrière bi ñu am ñu dem ci ba suuf waaye loolu ma sëñ sëñ abi mu tontu loolu sëñ Maamar tontu loolu sëñ tontu loolu ne ma loolu moom jël ndax benn liggéey la lépp ci dëgg bi si lépp sëñ Touba ko moom kon carrière baa fa soxla jël ko loolu itam maa ngi leen koy seeral lu ñu yombalal liggéey bi la kon nag noo ngi santaan santaan ñëpp di gërëmaat ñëpp di ko tàmbalee ci soxnaa sama non dama koy wax ne fi ma sama waajur war na féete ci liggéey bi ma war a wéeru ci moom ba na a liggéeyal sëñ Tuubaa moom moom ma fa féete moom ànd ak man dama ci taxaw dama ci wettili dama ci jàppale ak liggéey bi sëñ Tuubaa ba may nekk nag loolu la kon faaw ma leer ko taal taalibe faaw ma leer ko ñëpp kon ñu ngi sañ sañ ñëwaat ñëpp di santaan ñëpp gis naa Modou Abib Diop léegi mu yegg fekk na may jël kàddu gi jaratu ko ndax waxoon na waxati waxoon naa ko ne ko nañu wax ci seen i seen i soññee am na ko wax léegi ne góor a faal mi nga doon ñëw waaye góor ñëwoon na bis ànd ak mu day fekk fa ma toog soññee naa ko la lii nga xam ne moom la Pape Seck wax ci soññee gi ci transport bi moom dégg naa ko waaye noonu rek la demee moom kenn ko ne da jàpp ne yow rek la sëñ mi defal sëñ Tuubaa nag mu mel noonu moom mu liggéey liggéey bu rëy boo xam ne kenn ko de ba nga jotee sa wàll da ngaa ne yow rek la ko defal kon nag bu kenn ko ne defee loolu kenn ko ne jàpp ne yaa war a war a jiit ñi bi lu ñu defal sëriñ bi lu ñu dana yomb li ñu ci xamee ba lu ñuy lu ñuy deflu Baay Faal ñoo ko war def Baay Faal dañoo xam leen sëriñ bi defal rek ñun ñëpp ñun ñëpp ko xam war a xam nag ba ñu xam ne doon nañ suñu bopp dara man loolu suñu bopp dara itam lépp sëriñ bee sëriñ bee nu moom moom nu mënal dara ñu jox ko lépp kon bu bu sëñ bi soxlaa buñ soxlaati ndax bu buñ ko defee buñ defee bëggu sëñ bi rek am am sunu am leen bëgg kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërëjëf ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu